moo di processus bi euh, ñu bëri ñu ngi doon laaj li nga xam ne que moo bi euh, wax na ko sànq mu nekk exclusivité bi na xam ne itam blanché nañu ko et tant d'autres et mais est-ce que conditions yooyu yëpp ça xalaat nga ni moo leen si dem élection amal élection yu transparente yu inclusive yoo xam ñëpp ñëpp dinañ si daal di a mën a gis seen bopp. xam pour cent yi ne woon moom la gagné 2019. Hmm. suñu dindi woon 42 pour cent yi ko contre ñu dem ak moom 58 pour cent yi rek voté dañ koy gagné. maanaam bëlëf beeg yooyu yëpp wan nañ ñu ne affaire bi leerut carte gi du leer fichier bi nangam nangam ak nu mu mën a mel toja nañ ba doyal nag mais mënuñoo sàcc lu leen taxa desaat xam nga wax ji yëpp mooy xam ne ragaluñ leen mm-hmm. te xam ne xam nga ñun licence bi li ñu ci neex mooy dañ leen a xam xam nga bu fekkoon ñi mu fi desal bu leen teelee wax ne fexe buux leen ci affaire yi leerul dañ naan noonu nañ ko leeral comme li genre nit boobu wax Boubacar Camara noonu nañ ko xoolaat teel a ba bëgg a dee gis nga mm. yaa ngi koy xool ci moment bu muy jël décision ak yan décision lay jël. Hmm. gis nga nit ku faible mooy gaaw a tiit gaaw a ébranlé mais gis nga du jàmbaar dëgg dëgg nañ ci dem la lay wax. moo tax ñu malgré li mu wax yooyu ñu ne ko xoolal nañ dem élection dafa doon bëlëfe yaakaar ne bu waxee ne affaire yi leerul wala def nañ li nangam na danañu tax a teggi suñu tànk moom moo la gën a xam lépp ay sondage la def xam na ban niveau la gars yi am xam na ne day ñàkk. mais bi mu ñu poussé ba xam ne gars yi nag tafuñu élection day am parce que bu doon ay maas ak Boubacar Camara la koy am da nga ni talañ na élection yi bëtal na ko après ñu toog ci non non foog ñu xool di jéem a jaay l'intéressant wala affaire yooyu maanaam daf ko daf ko seq ak ñoo xam ne dañ ko ndar képp. ci mm. fu mu ko foogee foogewut xam nga fi mu gën a def ay naan ay terrain sas gardem foofu lañ ko fekk commencé la ko faa dàqati. Mm-hmm. xam nga ko moo jël deuxième Fuuta xam nga loolu jël ko te ñoo la gën a xam ni muy mel bu jaaree yoon te dañu pare woon day jaar yoon xam nga lan nga mën a sàcc mooy élection primo votant yi am nga waroon a def 6 mois fexe ba mu nekk un mois nga war leen a jox seen carte di sànni carte ñi fii wala malgré loolu booy effort bu ñu mën a def ba jot seen yëf jot nañ ko taxaw. Hmm. maximum jot nañ ko taxaw. dem élection li nga mënoon a sàcc bluffé gars yi 2017 ak 2019 mënatoo ko parce que dañoo fàtt fépp léegi bi mu demee ba xamal ko boppam xam na ne ñun maanaam. kii nañ fépp mu xam ne kafuñu. bële fe na ne du mm. du du sotti du baax du nangam nangam ñu ne ko dañuy dem tànn suñu mbër. ne dañuy dem daal ne na ci xëpp kaani wut ay bouquet misère. Mm. ku mel ni Amadou Ba bu dof dof loo kaso la jëm xam nga lan moo ko may sens. mooy pression bi gars yi def. mais démb ah, ah, ma kii moom laa lay wax moom laa lay wax. moo tax mu mu delluwaat ko confiance su fekkoon ne li ñoom li ñu jekkoon xam nga jour ensemble mu mel ni ñoo jekku. Mm. te fi ñu teewoon. suñ paree ci Amadou Ba du ko jig Amadou Ba xam nga la mooy euh, seul euh, sauvetage am. Hmm. mooy opposition bi gagné Macky Sall moom mu gagné. xam nga moo gañ moom mu gañe mooy lan moom mu gañe waa APR contr contrôlé waa APR parce que ñoom ñu ëpp ci APR xam nañ ne moo nekk ci dëkk loolu la mën a gañe petite victoire mais la grande victoire xam nañ ñan la loolu moo ci tax kon tey bu demee bu Macky dellu ginnaaw di ko renouveler euh, confiance am hmm. na ko sante yàlla na ko sant leader yi nga xam ne ak ndaw ñi nga xam ne surtout gars yi def pression ci population population bi jox ñu bopp ba ñu xam ne waa ji mënatu ci dara bu yaa ngi doon gis lan la waxoon dans un premier temps lan la France waxoon dans un premier temps hmm. même Joe Biden mu ngi ne woon part hmm. gis nga àdduna bi la yegg foo xam ne yàlla moom moom dooleem citoyens yi ci la koy tas gis nga les citoyens du monde ñoom ñëpp benn lañ peuple yi lii waa Sénégal xool ba ne jaaduwut dañu nekk ci leer du numérique technologie avancée mm. lu jaar fii léegi waa États-Unis xam ko te waa États-Unis buñ ko xamee am na loo xam ne ci démocratie dañuy taxaw ne seen ay dirigeants ñoom seen ay dirigeants yabuñ leen moo tax li nga gis Amérique def ko démb IE def ko démb parce que population yi ñoo mënatu a gis nga loolu sax dafa dafa dafa dem a dem ba ñiy yor yi muy Maroc ak Arabie Saoudite yooyu ku ci xoolaatul sa bopp defaraat sa toogaay wàcce affaire yi nit ñi mënatuñoo continuer ak loo leen mën a defal ci àdduna nit ki gis nga li biir li picc di am mooy lekk naan bàyyi ma yi gën a suufee lekk naan loolu ku ne mën na ko lijjanti sa bopp être humain ci boppam doomu aadama nit ci boppam moo soxla lu tege ci yoon moo soxla ku ko respecté gis nga képp kuy noggatu sa peuple jamono day ñëw da ngay mër nërmeelu hmm. li amoon ay jamono nga xam ne kenn xamul hmm. léegi monde bi dafa gëndalikoo xam nga la moo fi xew àndu nawle hmm. Macky Sall nag lenn laa koy wax ànd ak li ma koy contre contre yëpp am na loo xam ne yéene wuma ko yéene ko ko na moytu boppam ci boppam avant tout parce que bu toppee bakkanam bakkanam dana ko yóbbu ci guuta na moytu boppam ci ñi muy àndal am na ñoo xam ne bu leen toppee xaj na moo leen di defloo waaye ci kawam la ñuy wëlbati ci wet gu nekk nag du mu ngi commencé gis gis nga bu dof dofloo pire que ça la am. alors euh, jàmm rek lañ ko yéene parce que ñu Sénégal xam. Mm, mm. lo xamné Sénégal mësu ko xam. alors c'est clair euh, exactement ça mais euh, ñu gis ni assemblée nationale mu nekkoon benn scène de de cacophonie entre li nga xam ne que moo di députés exactement alors mais Khoureychi vu li nga xam ne moo posture bu PDS est-ce que jàppoo ni Karim euh, il en a subi assez par rapport ak insuci yi nga xam ne itam ñu koy teg ci kawam est-ce que tamit PDS mën ñu leen comprendre d'une part. kan moko tek ci kawam fofu ok man. kan moo ko teg parce sa nationalité mu nek lu 10 déedéet non ñun ñoo lolu moko tek bopam hmm. leneen li Macky Sall la ko teg. Hmm. et le peuple lan lañ ko def ñun. jëlal ku rees maa ngi tuub. non t'inquiète <laughs> ndeysaan non mais euh, man d'abord li may wax fofu moy Karim Wade du demoon na élection présidentielle pour 2019 hmm. sénégalais et la constitution ñom xamuñu woon ni Karim Wade dafa am nationalité double nationalité hmm. on dit que la police sénégalaise fait partie des polices les plus ou bien les mieux renseignées je parle pas d'Afrique hein, du monde ñun buñ bu lenn ñu ñu dañ nane ba tay hmm. malgré tout tout tout man dama gëm ni suñu homme de tenue am nañu place buñ leen war a mën a jox pour cër bi nga xamante ne moom lañ leen jox te ñoo ko moom. mais damay wax ni euh, Karim Wade man je ferai pas son avocat tu sais pourquoi moom fan la nekkoon bi li yëpp di am. Hmm. ba tey jii moom mun naa ne ci li indi nguuta gi ci la bokk. am na ci part de responsabilité totale parce que man pour man c'est de l'égoïsme man loolu laa jàpp égoïsme la sama bopp dong mën a gënal. bokkuma kenn du bokk. bu ma bokkul kenn du bokk. aloo ko yow ba nit ñi di torox yow foo nekkoon yow da nga dem mu jaral nga dem def sa benn escapo xam nga luy escapo nga dem def sa benn prolétariat boo xamante ne da ko def ci guddi. Hmm. nga ànd ak ceeg ñi nga ca waraan àndal ñu signé nga signé. il a été loolu yaa ko wax. qui papier bu Karim Wade a été rapatrié en tant que sénégal on peut pas te rapatrier de ton pays. si Karim Wade a été rapatrié il devait être rapatrié en France d'autant plus que il dit aujourd'hui que c'est un Français donc il a la double nationalité. il devait être rapatrié en France il a été <laughs> rapatrié entre guillemets au Qatar il travaille aujourd'hui donc Taïgi, est-ce que rapatriement c'est un mot correct pour utiliser moi je dis non je ne suis pas d'accord il a accepté parce que am du nit yu bëri ñoo xamante tey proposé di proposer ay gardez ñu garder dignité Il ci bi jeel maan yi gënu leen il na ñoo par erreur. donc PDS ak Benno c'est toujours la famille démocratique attention.

APR ce son les enfants du papa Lapin ñoom Mbor mooy laay ñoom ñëpp ay doomam lañ ñii mooy doom yi nga xamante dañoo lekk ci carotte gi ñii mooy ñi nga xamante ne ba ñu lekk ci carotte gi sédduwuñu ñu gét dem uti gerte fan na gerte gi ñu jaawale ko dem jox ay fas fas yi di làbbali fas bi dem ba ci yoon bi nag biir bi daw fas bi mënta daw est yaa ngi may dégg. léegi nag pas-pas ba ba waroon a am ca kaw ki war fas ba da ko daw. Hmm. di ko dóor di ko làbbali fas ba dafa mujj woroog boppam biir bi daw mu wàcc pas-pas bi eggali mooy waa Pastef li ma lay wax nii na nga déglu bu baax li ma lay wax PS PDS Benno ñoom ñëpp génnuñu si lii nga xamante ne Sénégal fii la ñu nekk fu ñu toll nii parce que ñoo ko voté ñi nekk assemblée nationale ñoom ñoo ko voté c'est eux qui ont voté ça mënuñu dem ba ci biir nag kenn ku ci ne di jéem a démarqué wu pour des intérêts politico politiciens il faut que ñu respecter d'abord le sénégalais et le Sénégal parce que nous ñu le guute du Sénégal je vous promets amul président amul député il du que ci jàmm te lu amul lu jàmm lalul dara mënu même le président Macky Sall il ne pourra même pas gouverner de la manière qu'il le veut en prolongant son mandat su dëkk bi nekkul ci jàmm mënta nekk te instant bi a pas ci fitna fitna nak nekul ci ay taal ak ay lak ak ay xeex ak yooyu gis nga fitna bu njëkk muy fitnay xel. Hmm. alors ah, sax moy fitna. sa xel bu dalul yow yaa ngi ci fitna te fuñ toll sénégalais dañu ils sont fatigués psychologiquement. Hmm. des manœuvres et manipulations politico-politiciennes dañ ci sonn amna ño xamné dañu décidé peut-être duñu ñu ci biti duñu ñu duñu sanni mais le moyen bi nga xamantene moy le moyen constitutionnel. Hmm biñu amone pour mën a sen seen naqar wala changer le devenir de ce pays là dañ ko confisquer ci jaay doole moy lan dem voter hmm. c'est le droit minimum pour un citoyen mu dem voter donc élection dafa nekk lo xam gars da nga don xaar mais non bien sûr mais non mais non écoute il y a gis nga dafa am ño xamné c'est des partisans hmm. am ño xam c'est des sympathisants am ño xamante c'est la classe waxuma duma ko jox connotative lenen c'est la classe et c'est les grands électeurs Ils Tu voté que que que militant kese gagner. Ces militants militant ce là la voté. ba nga gagné hmm. mais de par ton programme de par ton parcours et ton discours bu tu dem ci campagne ak bu au courant des choses c'est là où tu conviens la masse de cette classe pour qu'ils puissent voter pour ton programme ou ton projet donc au dit, li ñu nous PDS génnewu ci loxom man je ne serai pas l'avocat de Karim Wade parce que pour moi il a été égoïste De képp ku ko fi défendre man pour man tu es de père tu es égoïste parce que amna na ñeneen ñoo xamanté et puis Karim qu'est-ce qui l'empêche de venir lan mo mais non ça dafa nank rek dara mais da nga wa waaw mais arrête su fekkee ni ñom ñokoy défendre su fekkee ni ñom ñokoy défendre ñu constitution may mu nek candidat il doit pouvoir venir et battre campagne warona na ñeu def parrainage mais entre guillemets dañ ko tuumaaloon n'est-ce pas mais amoon 138 milliards mm. donc tey dit dans les normes bu waré ñeu wara nek candidat dafa wara fay suñu cent milliards parce que ñoo ko moom suñu alal la su fekke ni li ñi wax deug la mais mon budul dara yow ya bëgg ñëwal ci réew mi ñi ngay laaj ñu ay chinois nekkuñu ay Guinéen nekkuñu ay Gambien c'est des Sénégalais da nga laaj baatu askanu Sénégal da nga wara a bir Sénégal. Hmm. battre campagne équitablement comme tes autres pères. Hmm. c'est-à-dire tes autres frères yi nga xamante dañuy laaj askan euh, baatu askan bi mais nga tok Qatar di lek sa ceebu biryani hein, di dóor sa laabaan ba pare tok Sénégal bëgg tas Sénégal loolu mënul nek c'est pas possible té jamm bi ni mom da ci am part de responsabilité. Il ci am pas de responsabilité Il naan Macky Sall Macky Sall mais du Macky Sall kese il peut Macky Sall à lui seul ne peut pas tout faire il faut que am ñeneen ñoo c'est des bras armés ñoo xamantene ne ñoy ñom ñoy accepter limu bëgg def et là aussi pas de responsabilité population Sénégal il faut que la population prenne ses responsabilités. mais hein, comment mais c'est très simple ok prendre ses responsabilités c'est très simple Il n'y a pas à chercher de médias à 20 heures c'est simple yow y a bu sa kër ne la wàcce sa damay teud par force lay def est-ce que da ngay xaar sa leader wala sa serigne wala sa papa wala sa yaay wala sa dom wala sa soxna ñëw ne la ni nga ko wara defé pour nga jël sa responsabilité nu jël sa responsabilité merci le silence. Hmm. ken ku ci nek hmm. am nga no jël sa responsabilité. et ça concerne tous les sénégalais na ken ku ci nek jël sa responsabilité serigne bi fay jël responsabilité mais yow ndongo bi da nga wara a jël sa responsabilité parce que serigne bi nga xamné moy sa sëriñ lu mu nekk nekk sa wasila lu mu nekk nekk sa kilifa gënu nekk Sénégal.